mel na ni pënd bu wuri na ci coow li doxoon diggante xalif général des mourides Serigne Mountakha basiiru Mbacké ak soxna Aïda Diallo mi fi doon woote njiital ca cantakun yi ginnaaw ba mu wootee màggalu Tuuba foofee sa ngaabu te amaloon fa ay acte yoo xamante ni dëppoowut benn yoon ak lislaam ba metti woon ki nga xamante ni moo di xalif général des mourides ba mu woolu woon ko ginnaaw màggal gi ca këram ca Daaru Minam daal di waxtaan ak moom mu meloon ni soxna si daal jëfewut wala déggul ndigal li nga xamante ni sëriñ bi dëggaloon na ko mu jëmoon ci wàllu dakkal bépp manifestation wala bépp act boo xamante ni dëppoowul woon benn yoon ak lislaam ci loolu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké defoon ab sortie ba naroon a génne ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo foofee ca Touba ak ci yoonu Mouride waaye ci ginnaaw bi soxna Aïda Diallo daal di amal ab vidéo di jégglu tey naqarlu mer gi nga xamante ni merloo woon na ko kii di Serigne Mountakha basiiru Mbacké ci ab vidéo moom soxna si mu ngi xamle ni daal dakkal na bépp manifestation te regretté na bu baax. li nga xamante ni jot na fee am démb waaye rek mu mel ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nangu na njébbal yooyu xalif général de mourides bi sax mu ngi wëlbatiku di ko xamal ni ak njaaxum lu mu rëy rëy te ñu nangu ko accepté ko duñ def lu dul rek jéggale te di ñaax soxna si mu bañ a dox ci lépp loo xamante ni dëppoo wut ak lislaam ak njàng njànglem Serigne Touba. li daal mooy réaction bi nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké def na ko ginnaaw ba soxna Aïda Diallo jégloo ci kanamam ak ci kanamu umma islamique bépp waaye rek laaj bi samp yi ndax soxna Aïda Diallo dina respecté kàddoom yi li ci kanam raw li bët